Euh, état bi ak euh, ak Nations Unies ba barewuñu trop ay ay action euh, présence ci société minière yu yu mag donc loolu moo tax ñu ni duñu créer benn SOMISEN ba nga xam ni moom dana jël action état bi yëpp dana top affaire action état bi yëpp balaa ñuy créer société yooyu SOMISEN dana taxaw su naan négocier ak société yooyu SOMISEN dana taxaw su sous euh, exploitation commencé exploitation mini commencé SOMISEN dana taxaw état bi yëpp SOMISEN dana taxaw comme ça dana xam à tout moment euh, lan lu ñuy doxal ak lan la état bi mën euh, réellement récupérer parce que il faut nga xam balaa ngay proposer yeneen action

si si euh, si euh, exploitation yooyu moom moo xam nu mu koy jaayee il faut donc so état bi daal mën a fonctionner neneen bay euh, Sénégal gën a jëriñoo si mine yi nga xam ne ñoo ngi koy exploité ci ñu nekk si biir Sénégal.